xam nga nit ñi ñi ngi la naan honorable honorable mais xamuñu la 100 pour cent bi maa la ko wax 40 pour cent bi moo ne Sénégal ak li ngay fan lépp mais 60 pour cent bi xoolal fañ naan bon joorno bon seera di fa lekkee pasta al ragu foofee lañ la xamee wàccal ma ne wàccal wàccal sunu député <laughs> baax na yaatu na yiw na te mi ngi liggéeyal sëriñam kon lu mu wax ci man rek ci moom la nekk moom mii moo baax moom mii moo ma def mag te suufeelu ma def ma mag kese député la ci biir député yi waaw ku fi saf naa leen euh, tey lan ngay wax si bi waaw xanaa di sant yàlla di sant yonent bi sant sëñ Touba Xaadimu Rasuul di sant Cheikh Abdou Lahad Mbacké sama sëriñ di sant sëriñ Fallou eh, mi nga xamante ne mooy kilifa Cheikh Abdou Karim Mbacké borom Makarim Akhlaq di magi Baye Laat waaye di sant ki ma dalal muy soxna faatu ki Gueye ñu ànde woon comme dugub ak sëb ca tool ya li mu wax léegi dafa ni yëf nekkul fii yëf yaa ngi jógee fi ñuy waxee bonjour no buonasera fi ñuy lekkee pasta al bolognaise di lekk pasta al rago foofu la yëf yi jógee ñu yàgg fi ñëw nag te wax dëgg yàlla nekkul loo xamante ne euh, ngistal la dafa yàgg dafa sincère donc ñoo ngi sant Sénégal yëpp di leen gërëm. lan ñu wax sa digganteeg Baye Karim. sama digganteeg Baye Karim da koy natt ci sama digganteeg Fatou ki Gueye man awma diggante ak Baye Karim soxna Fatou Kiné Gueye laa amal diggante. moom mu ànd ak man ba ma xaal sëñ ba ba ma ci Baye Karim ndax man awma diggante ak Baye Karim wax naa ko waxaat ko wax ko waxaat ko kër sëriñ Abdou Lahat laa dëkk Serigne naa mu sëriñ Abdou mu soxna Ndey Sulang laa jox samay loxo ni ko aslamtu nafsi man Fatou Gueye Kiné Gueye laa amal diggante ci Fatou ki ci Fatou la ma sëñ bi boolee ci boppam am fu ma teg ba boo ko tuddee maam jaaramu reetaan xam nga sénégalais ngi reetaan rek te xamuñu lu ñuy ree reetaan yi fii la nekk reetaan yaa ngi nindi. mais balaa ñu la rek ci ci politique nga baal ñu ko en fait keroog bi nga solee sa robe bi dox mu jur coow lu bare bari gars yi di ko partager est ce que xalaatoon nga ni dina indi buzz bu toll noonu est ce que yaa ngi si doon xaar waaye man lu ma def calculer naa ko. <laughs> man xam nga damaa mën bis nag ndeysaan <laughs> loolu yàlla dogal <laughs> du dara damaa mën bis rek man xam naa fi ma Sénégalais yi teg. xam fi ma sénégalais yi di xaar te foofu rek laay génn ak ñoom man aw ma droit def erreur damaa war lu ma def Sénégal yëpp nii maam jaara fam def na nangam fa tabaarakàlla parce que Sénégal yi noonu la ñu bëggee noonu lañ ma soppee te man foofu laa leen teg fa tabaarakàlla moo tax saa yu bis amee rek ma sagal leen. waaw alors Mimi Touré bi mu démissionné tamit euh, ba bon seen faveur la nekk en quelque sorte parce que da xaw a tolloo euh, ci wàllu député yi la ci wax. waaw dina nekk faveur opposition parce que dañuy nekk léegi parce que démissionné Mimi Touré démissionné wul mais dafa ni député la parlementaire la d'ailleurs maa ngi koy félicité commencé na def fonction wu parlementaire am wax ni bëgg na def ay projet de loi yu bëree bëree bëri yoo xamante ne ci ñoom la koy jële ci ñoom la koy ci nit ñi la koy jëlee donc donc euh, Mimi Touré noonu la li mu wax loolu lu lu rafet la ñu rafetlu ko trop wante nag euh, ñaawlu aussi. façon bi ñu ko def parce que dañoo war a wàcc fu ñuy utiliser jigéen jigéen dafay politique jigéen am na droit def politique am yëkkati euh, tëral daw parce que dafa daw fukki kilo euh, li ñuy wax li ñuy cinq mille huit cent et quelques kilomètres te loolu jigéen bu ko daw boole na ko coono boole na ko bëgg a nopp noppaluwul boole na ko bëgg a nelaw nelawul wax dëgg yàlla euh, warul woon xamee ni ci salle bi moom parce que dañu am habitude ku nekk tête de liste ci parti mun nga nekk am aspire nekk président assemblée nationale te it ki la ba def la tête de ni la wutil ay député dafay jàpp ni moom nga wóolu rek moom ngay nara a wóolu pour mu fal la kon warul woon toog ba ci salle bi xame fa ni moom du nekk tête de liste assemblée nationale pour président assemblée nationale je pense que loolu solidarité naa ko ci moom en tant que jigéen mais aussi moom it euh, xam naa ne du woon yomb nag ci moom ndax xam man Karim Wade boo ko laalee il faut boo boo nekkee ci perchoir bi ma joxal bi la ñaari yoon te dañu am tuuti contrat contrat du man ak Mimi Touré ak waa parti démocratique sénégalais xam naa lool la président xool moo tax généralement quand on donne euh, liggéey bu ñu la joxee liggéey ni defal euh, benn sale boulot bul ko def parce que yenn saa yi dafay nekk loo xamante ne après wax dañ ko utiliser ko en quelque sorte. waa xam nga man du ma ko wax parce que moom kilifa la nekk na suñu premier ministre nekk na lu man naa wax ne. dañ koy utiliser parce que jigéen la mais dañuy dañuy dañuy utiliser faiblesse am parce que jigéen du gedd xam nga dégg naa démb benn chroniqueur bu ne diggante Mimi Touré ak Macky Sall sëy bi tasul maanaam mooy Mimi Touré Macky daf koy denci noonu rek saa ko buggaatee jël pour yónni ko mission daf koy jël parce que ci présidence de la république la jógee nekk premier ministre jóge fa ñu jox ko chargé de mission chargé de mission yàgg naa ko ci takki ne sax naan ko jóge ci PM dal ci yónnee yónneent xam nga mais yooyu yëpp entre politicien la mais bu dee caaxaan passé dëgg des vraiment c'est décevant nga liggéey am yaakaar dañu la waroon woo ne la kaa ñu waxtaanee ko yow kat dañu buggoon la proposer leneen te nga bàyyi assemblée mais toog ba ci salle bi doog koo dégg moom suufeel jigéen la bu doon góor ñemewuñ ko ko def gis nga bu doon góor la sañuñu ko ko def mais jigéen nañ jàppee noonu Sénégal te dëgg la nag fii système patriarche la ñu am jigéen ñu bëri ci pâtir parce que tey. jigéen ci moroom bu ñu bëggee utiliser jigéen ji xeex jigéen jigéen ni moroomam la ñuy utiliser xeex ko loolu mooy waral ndeysaanam euh, yu bëri di am ci république bi. mais mais coow li fi am également ñu gis ni euh, Guy mari Sagna dafay jël kees gi deux fois da koy jël di dem moom taxaw ci ko taabul bi est-ce que duñu tiit nga ni naka la. moom lañ ko dénk. kees gi lañ ko dénk. kees gi moom lañ buñ saa ñu naree def lu jubul gis lañ di gii lañ di kees gi loolu ñëpp juboo nañ ci léegi <laughs> yow rek yaa xamagul alors dañuy ñëpp juboo nañ ci ni Guy. moom dénk mooy gardien du temple yaayam nee na ko léegi kees gi yow lañ ko dénk suñu kees gi suñu keesu natt la suñu natt lañ ciy def eh, bu ñu ñoo xam ne wóoluwoo leen boo gëmmee sa bët ñu ñu coppati ci dara wala ñu yokk ci dara xam nga kii bu yobuloon kees gi Farba Ngom dugal ci Aminata Touré te Aminata Touré waru cee bokk ndax Aminata Touré dafa génn ne man santu ma kenn mu voteel ma ma guy nag moom lañ dénk kees ndax guy moom bu ko téyee kenn du ko dab ah, guy nee naa ko guy ak lépp ngay dégg waaye loo dégg jëlal mais Barthélémy Dias Ahmed Aïdara ni ñuy xëccoo président assemblée ku que du affaiblir un peu euh, man sax ma neexoon ma ne bëgg naa nekk président assemblée ah. demandé wu man je ne demande rien xam nga man dama nekk ci parti boo xam ne parti démocratique Sénégal la tudd am kilifa kilifa tudd Ablaye Wade Ablaye Wade moo naan doxale leen nii <laughs> Ablaye Wade man moo may wax Ablaye Wade mooy. pour man ma montre là elle est réglée à l'heure pile da Abdoulaye Wade su ma Abdoulaye Wade ne defal ma def su ma nee bàyyil ma bàyyi te it am naa sag dafa ne cër yi bu génnee pikin nañ ko sagal pikin bi ma nekk mu ne cër bu fa génn bu dee bu góor bu dee bu jigéen jox leen ko maam jaara faam bu dee bu góor jox leen ko Ablaye Diop cër bi génn tombé góor ndax séddale moo demee noonu dispatching bi ku nekk xam nga fi nga war a placé wu ba génn tombé euh, góor ñu jox ko Ablaye Wade sinon tey man maa doon nekk sixième secrétaire élu loolu moom dama la koy jox exclusivité ndax du ko wax waxuma ko fen Ablaye Wade dafa ne Pikine su dee góor su dee jigéen jox leen Mame Diarra Fam su dee góor jox leen jox leen Ablaye Diop xam nga loolu cër la kon Abdoulaye Wade cëral na ma. alors fi ñuy fi ñuy daanale mooy Madiambal Diagne dañu gis démb ci page Facebook mu mu tiwte teg benn photo bind on ne mesure on ne mesure pas pas on ne mesure pas. waaw liir nga ko d'accord d'accord donc jëluñu signal ban gis nga. non parce que du boo boo di compter ci kaw xeet. nit ñi dafa am nit ñoo xamante ne dañu war di mujj a wax di njëkk a noppi ci la Madiambal bokk sincèrement parce que nag journalam du wax jàmm te gis nga président Macky Sall ku ko xam dëggantaan. yéene ko jamono bii xam nga lan nga ko wuroo wutal jàmm pour mu yeggale fukki weer ak juróom-bennam yi parce que assemblée bi nii ma ko gis mu commencé bu ñu bëggee doxalee nii di attaqué nit ñi ci ay racine ay xeet ay bodde konté ay mbaxana ba jamakun ay nangam nangam ñoom ñooy teg problème Macky Sall rek parce que ñun il faut ñu dem hémicycle. parce que parce que doguma la sax député mi ngi tudd Alphonse Sambou moom mi ngi nekk si euh, département de Sédhiou. donc moom Ousseye plutôt donc moom li mu sol noonu donc dafay représenter culture am est-ce que gisoon ni war nañ mën a bàyyi ku nekk ñëw assemblée représenter sa culture. lu tax mu xool ci boobu rek man gis naa député yow bu indi tengaade gisu leen ki sol tengaade bi assemblée ah lu tax tuddul tengaade bi nañuy ñaan jànn ci réew mi nañuy ñaan jàmm nañuy wax jàmm nit bo buur boo ko jegee jamono tension am da ngay def jàmm ñoom dañoo war di def jàmm mooy li tubaab naan. mettre de l'eau dans leur bisap au lieu ma tudd beneen tur bi nañu mettre de l'eau dans leur bisap te bàyyi Macky Sall mu eggale fukki weer ak juróom benn mi loolu mooy dëgg. lan ngay daane. waa sant Serigne Touba rek sant Xaadimu Rasuul. nii lañ def daal di daal di gis nga ko man sax léegi laa summi waaye ñun ñëpp nii lañ defoon ñun ak soxna Fatou Kiné ñëpp waa daaw it nii lañ defoon daal di daal di def lu baax defar ba mu baax ñu ñëw ci barke Cheikh Abdou Karim Mbacké eh, ci kër gi waaye nag di ziar nag suñu Serigne si nekk Touba yëpp. ak ñi ñu invité sama rak soxna Ngoy Fall falaa jëm nii xam nga parce que daf ma invité jëm eh, ci soxna Ami Mbacke Balla Dage moom it sama doom la dama fay dem seeti sëñ Bass Abdou Khader ñoo ñëpp da ngay dem ziar leen ziar sa sëriñ sama e soxna May Mbacke bintu Cheikh Abdoulaat nga ziar sa sëriñ yëpp daad di dellu si waat daal di añ ndax fii moom def nañ ndekki bu bu bu bu fort boo xam ni soxna si. Eh, ay morceau gileem sax a ngi ci lakkum dibi mi ay morceau ay dibi morceau gileem yooyu def nañ ko ci waaw xam ma damay bañ njëg faaleen yeeg mbengeen yeeg gayeen mais je veux dire bàyyi naa ko ci kaw te it li neex ci mbir mi mooy dañ lay indi lépp ba pare ne la bu dara génn néeg bi lépp Baye Karim mooy wax ne maanaam ku ñu indil ndekki la ca des boisson yaag yëpp bu la neexee génn ci mbedd bi may ko xam nga loolu moom fii la am ndindi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 هماني هلا ماهن ما الأبس والسفر سلام